jëf euh, mbokk yi ñu ngi fii ci foir ci dernier réglage yu mujj yi jëm ci suba journée seex Cheikh Mamadou Lamine Bara bi nga xam si ni mooy quatrième édition ñu ma taxaw ak ñi sama mbokk yu baax yi bokk ñoom Serigne Touba bokk ñoom seex Cheikh Mamadou Lamine Bara bokk ñoom Maam Thierno Ibra Fati bokk ñoom sëñ Mbacke Kajoor ak euh, euh, bokk ñoom it Serigne moor Diarra ñu ay mbokk te ñoom ñëpp kenn ku ci ne la fi indi mooy. fa tabaarakallaahu ànd ak ñun bis bi ci pastef ak taxaway ak engagement ñuy xamal aduna euh, bépp ni incha allah rabbi suba di la 14 mars incha bu ko yalla dogalé moy nek 4 quatrième édition journée qui culturelle Cheikh Mamadou Lamine Bara nek la 14 mars suba di 2020 bi ñu nek di ñaan yalla mbokk yi ñu ñëw ci jamm fekk ci jàmm delluwaat ci jàmm tey ñuy ñaan ci barke borom bis bi jàngale jooju nga xam ñu ngi koy dégg ci réew mi euh, fi mu àggagun yàlla yamale ko foofu mu bañ a euh, tasaaroo ci biir réew mi te Cheikh Mamadou Lamine Bara dañ daan wax ni faj aajo moo ci gën a gaaw lu mu wax boromam mu ni waaw day fal di folli ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi te fi mu toll nii askan wépp adduna bépp seen aajo mooy jàngoro ji yàlla jëlee ko fi. kon nag ñu ñaan ci barkeem moom mi nga xamante li ñuy def moom lañ koy defal yàlla nañu yàlla ci barkeem jàngoro jooju saafaraw bis bi nag incha allahu rabbi suba la ñu war a def ouverture bi euh, bu 9 heures demi jotee mooy doon mise en place bi incha allah fu 10 jote ñu tàmbali cérémonie bi di ñaan kilifa yi ñu teel a ñëw di ñaan taalibe ñu teel a ñëw te kenn ku ci nekk booy ñëw nga ànd ak dal ànd ak Pastef ànd ak engagement te xam ne da ngaa ñëw da ngaa jëm ci bis boo xam ni bisu ku liggéeyal yàlla la bis la boo xamante ni si ni ku am ngërëmal yàlla la bis la boo xamante ne si ni koy taxawal dafa jeexoon takk ci boromam. yàlla dogali mu doon ku gàttu fan ndax quarante cinq ans rek la dund muy Cheikh Mamadou Lamine Bara kon bu ñu demee tey ba deux mille vingt ak njabootam dajaloo di ko di ko fàttaliku di ko ñaanal di jàng alxuraan di jàng ay xasida day wane ne rek liñ nan wa inda zikri salihin tanzilu rahma fàttali ko nit ku bax day wàcc yërmande sun borom fàttali googu ñukoy koy nak yërmande joju nga xamanteni sin dana fi wàcc ñi ngi ñaan yàlla mu doon yërmande jo xam sin day safara mbooleem jàngoro yi nga xamanteni fi fek nako fi ci ci ci barkem ci barke wajuru mu bax bi nga xam mom la bokkal bis bi muy mam ciorno Ibra fati di encore une fois di waxon nako legi ci wal fajiri ci taxawaayu Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké Noureyni di ko sant ci ay teranga mi nga xam sin indi na ko fi ak eh, yebal ak njabootam boobu léegi ñu ànd ak ñoom bis bi eh, yokkatuñu tàyyiwun nga gannaaw benn yoon kon fa tabaarakallaa loolu rek moo doon kàddu ñi ngi ñaan ñëpp ñu teel ñëw suba te ñëw ci ànd ak yar ak teggin te képp kuy ñëw it nga xam ni ci bisu nit ku baax nga jëm di fa sàkku ji yërmande ak xéwal àdduna ak xéwal àlaaxira ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu